alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk suma bopp ragal yàlla ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mbokki jullit yi lan moo xew lan moo xew ca Occident ci tugal réewi tubaab yi capitalist capitaliste yooyu ñu xam ci seen kattan ci seen doole ci am-am lan moo fa xew lan moo xew ba ñépp àndandoo tiit ñi nga xam ne ñoom lañ gënoon a xam ci lu jëm ci wàllu liggéey ci wàllu teg ay plan ak i action ak ci organisation ak i doxalin lan moo xew ba lu bari ci ñi gënoon a riche tey gënoon a bari alal ci àdduna ca sowu ñu ngi daw lay tey di jóge ca quartier ya gën a cher di dem di dëkki ca banlieue ya ak di dëkki ca dëkki kaw ya lan moo xew tey ba ñi nga xam ne ñoo gënoon a bari alal tey ci tugal gis nañ leen ñuy fab lala lenn ci ñoom ñuy fab seen xaj ya ak seen muus ya ak mala yañ doon yar ci seen biiri kër yooyu nga xam ne fonkoon nañ ko ponkeel goo xam ne moo leen gënaloon sax lu bari ci doomu aadama yi tey ñuy dem di ko joxe ci association yi nga xam ne ñooy yittewoo wàllu mala di leen ko may ngir ragal ne fere yi ñuy def ca xaj ya ak muus ya mën na leen a lor ci seen am-am lan moo xew ba directeur bi nga xam ne moo jiite li ñu tudde FMI muy kees gi nga xam ne moom la Nations Unies yor muy alal ji nga xam ne ku ñuy dimbali ca lañ lay dimbalee kooku ci boppam taxaw na ci kanam nit ñi reconnaître ne at mi ñu nekk muy 2008 lu mat téeméeri million ci ay nit ñoo xam ne bi at mi teru boroomi alal yu rëy lañ woon ñooña soppiku nañ tey ñu yalwaan ñoo xam ne jeexal nañ amatuñ dara téeméeri million mu waxaat ne lu mat milliard ci ay doomu aadama ci réew yu mag yi yi am doole tax muy wax waxul suñ réew yu ndaw yi lu mat milliard ci réew yu mag yi ñi ngi dund fii nu toll dund boo xam ne dund bu naqari la maanaam dund bu mënta yor doomu aadama kon lan moo xew ba banque yu bari ay sociétés yu bari xëy xëy daanu ci réew yi sow yi lan moo xew ba banque yu mag yi nga xam ne moom la waa àdduna wóolu woon te xam leen ba tax waxuma ne nit ñi fa la ñuy denc seen alal waaye banque yi sax fa lañ doon denc seeni alal banque yooye tiit ba nekk ci njàqare ne ñoom ba watul danañ perte balaa yàgg kon li xew mbokki jullit yi ci ak gàttal moo di juuyoo ak tëraliinu sunu boroom juuyoo ak tëraliinu sunu boroom sunu boroom moo bind nit moo bind ay doxaliinam moo bind mboolem ay mbiram moo wàcce alxuraan moo ci tër mboolem lu doomu aadama war a doxe kon doomu aadama su jàddee loola su ko gisee fii ci àdduna gisiin bu gaaw loolu waru koo bett sunu borom tabaraka wa taala moo ne ala yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir ndax ki bind mbir mi kooku xamu ko waxu kay ki ko bind moo ko xam machine bii rek ki ko bind notice bi mu ciy boole moom ngay jàng doon koo mën a jëfandikoo kon nag ki nga xam ne moo la bind yow doomu aadama xam sa biir ak sa bitti xam say doxalin xam li baax ci yow tey ak li baax ci yow ëllëg <clears throat> mu tegal la yoon ne la jaaral ci wii boo bëggee sa tey ak sa ëllëg baax soo ko jàddee kon loo gis xamal ne loolaay sabab sa waaye li xew dëgg-dëgg buñ ko bëggee gàttal leeral ko ndax mu dugg ci boppi lenn ci ñi nga xam ne xamuñu ko jàppal ne am na yenn waay joo xam ne Sàmba la tudd ka ca des tudd Abdu Sàmba mi salaire am deux cent mille la maanaam weer wu dee ñu fay ko ñeent fukki junni waaye nag ay dépenses yu weeram itam ñeent fukki junni la maanaam weer wi daal su ko amee su defee dépassam ba àggal day jeex tàkk yam ca kepp ndax kër gi mu dëkk mi ngi ko luyee cent mille francs maanaam ñaar fukki junni lay fay ci location ñaar fukki junni ya ca des ca lay def fereem ya ca des waaye li jaaxal sàmba mooy dendandoom ji nga xam ne mooy mooy abdu nga xam ne ñoo bokk fu ñuy liggéey bokk salaire dafa xëy xëy gis ko mu dëkk ci kër gu bees gu moom koo xam ne dane ko maa ko moom mu xool gis ko muy dawal oto boo xam ne bu ràññiku la ku moom lii mu ne ko maa ko moom mu ne ko foo jële lii mu jox ko numéro téléphone ne ko seetal agence bi waxal ak ñoom ah mu daal di téléphoné agence bi wax leen mbiram sa salaire nu mu toll cent deux cent mille francs loolu luyee kër fi mu ne mu ne cent mille francs ndax am nga dara loo mën a tayle maanaam lu mën a garanti ci banque pour ñu mën laa lebal xaalis mu ne déedéet teewul ña fa nekk ñu ne ko mën nañ laa dimbali donte amoo dara itam ci jox la kër nga dem dëkk ca waaye nag taux d'intérêt bi dafay kawe lool maanaam su fekkoon ne dix pour cent la naroon a doon ginnaaw amoo loo tayle kon vingt pour cent lay doon ñu daal di koy jox genn kër goo xam ne suñ ko doon jaay tey quinze millions lañ koy jaayee waaye ñu ne ko kat quinze millions yi mu war a jar danañ la ci tegal benn taux d'intérêt boo xam ne vingt pour cent lay doon kon loolu boo ko seetee kër gi daf koy daal di dikk dix huit millions maanaam ñetti millions tegu na ci ah mu daal di jël këram dëkk nekk ci jàmmam defe ci xéewal la nekk ànd ak mbég mu mag a mag a mag waaye fekk contrat bi nga xam ne moom la signante ak ñoom xoolu ko bu baax a baax comme ni nga xamee ne dëkkandoom jee mu gisoon mu dëkk ci këram xoolu ko bu baax boo xoolee contrat bi am na ci benn boo xam ne daf koy wax ne ko maanaam taux d'intérêt bi doonut lu sax mën naa yokku jamono yu nekk am beneen texte bu koy wax ne ko taux d'intérêt bi muy intérêt bi ñu la ci tegal saa boo xamee ne banque centrale bi yëkkati na ay intérêt suñuy intérêt day yëkkati kuwaale maanaam day yokk beneen a nga fa ati beneen texte buy wax ne su weer dee yow mi banque bi lebaloon kër gi nga yeex a si ba weesu date bi ñu la waxoon ne ci ngay fay li nga waroon a fay dañ koy ful ñetti yoon yooyu yépp xoolu ko woon ndax mi ngi yàkkamtee am këram ba dugg ci këram bi mu duggee ci këram ay weer lañ ca teg rek banque centrale yëkkati ay taux d'intérêt ah ñu daal di yokk la muy fay par weer ñi toog mu yëkkateeti banque bi yokkati taux d'intérêt li ko agence bi laaj daal di yokkooti mu jekki-jekki ñu ne ko li ngay fay par weer léegi cent cinquante mille francs lay doon ci koo xam ne cent la woon deux cent mille francs lay am ci par cent cinquante mille francs loolu diis na ci moom mu toog weer mun munta fay ba mu mat maanaam bi mu tardee ñu jékki-jékki yokk ko ñetti yoon yañ ko waxoon ca texte ba mu jékki-jékki li mu war a fay nekk deux cent quarante mille francs nag par weer ci koo xam ne deux cent mille francs ngay am kon mbir xew na léegi ñaari mbir rek moo fi nekk mooy benn muy def lu mu am lépp dem yut ko banque ba toog loxoy neen di xoolu njabootam wala mu toog di dund njaboot dundal ak njabootam bañ a fayati banque bi jàpp naa ne loola la def diggante boobu yi mu nekkee ci problème boobu nga xam ne dafa fas yéene toog korosé loxoom duuti jox banque bi dara jamono yooyu la dégg ne xaritam bi ko doon jox xalaat bi génne nañ ko këram ba mag a kër yaayam léegi dàq nañ ko ci këram kon xam na ne fa jaar rek mooy fi mu jaar kon moom toog na ci këram daal di xool saabu bu use ñëwee ne ko génnal kër gi mu génn loolu lay nekk ay nangami téeméeri junni tey ci Occident ñooy dund lu mel ne li waajooju di dund dugg ci mbir ma banque yi di ful di yokk di yokk ba mujj mënatoo fay kon loolu genn wet la mbir mi yemul foofu rek waaye banque bi ci jëmmi boppam bi mu la joxee kër gi nga dëkk ci mu yëg na yow borom salaire nga buy fay jëmmi kër gi kon jàpp na ne garanti na ne des na koy fay kon dafa daal di defar moom ay action yoo xam ne da koy jaay yeneeni nit ñoo xam ne wutkati alal lañ ay bailleurs yoo xam ne bailleurs de fonds yoo xam ne dañuy jënd ñoom ay këyit la ñuy jënd yoo xam ne dañ koo garanti ci kër buñ ko jëndee yore ko su ko defee dañ cay am bénéfice banque beet am na lu ñu ko ciy fay moom it ndax opération bu banque def bu nekk am na loo koy fay kon kër gi nga xam ne quinze millions la woon ñi teg ci intérêt bi muy dix-huit millions buñ ko séddalee ay action banque bi moom dana yéeg ba ëpp loolu ci moom waaye ñi nga xam ne ñoo jënd bon euh, yooyu war koo jaayaat ñeneen i nit ñoom itam suñ leen ko jaayee intérêt day ñëwaat ci ñoom ñooñee ko yor jënde ko ci bailleur yi yore ko dañoo dem ba mu yàgg ñoom it comme que ay bong lañ yore te bon yi ay kër a ko garanté ñu ne kon nu nit mën nañ koo jaay ñu dem jaayaat ko ñeneen ñooñu jox leen xaalis ñoom itam ñu amati ca bénéfice lépp rek kër ga lañuy ñuy séentu la ciy jóge war naa ñëw ci banque bi mu jël wàllam mu ñëw ci ñi ko jënd ñu jël seen wàll ñañ ko jaayaat itam jëlaat seen wàll ñi di ko def nag ba nga xam ne mbir mi dem na ba jéggi dayoo ba genn kër lañ koy tuddal ci bénéfice boo xam ne moom lañuy ñuy séentu la cay génne man koo man koo matale day mat fanweeri yoon ca la kër ga mën a génne day mat fanweeri yoon maanaam bu doon fukk day mujj soppiku ñetti téeméer daanaka kon mbir mu rëy xew na mooy kër a ngi goo xam ne ki fi dëkk muy sun mbokk moom yi di Abdou wala Moodu jàpp na ne moom moom kër gi banque bi nga xam ne moo ko ko lebal te wëlbatiku jaayaat boŋ yi jàpp na ne kërama ki ko jënd itam dafa ne ni kërama ka ko jël tayle ko waat feneen dafa ne ni këramam kon kërangoo goo xam ne kenn ku nekk dafa nga ne yaa ko moom yan nañ ko ci xeet yi lu ñuy séentu ci moom loo xam ne ëpp na fanweeri yoon yi kër gi suñ ko jaayoon lim mën a indi kon yan bu diis dal nay am foofu lan moo daal di tegu ci loola mooy bi nga xamee ne dem nañ ba ñooñu mënatuñoo fay ñi leboon kër gi war di fay par weer dem nañ ba lot xam ne taux d'intérêt yi yëkkatiku nañ ba amatuñ luñ ko fay ñi korosi seeni loxo taxaw biñ taxawee nag ñépp yëg nañ ne affaire bi yàqu na maanaam bong yi ñu génne woon mu doon ne këyit ñuy xaar kër gi kër gi buñ ko jaayoon tey lañ cay am du ëpp million parce que bañ koy jënd mu bees 15 millions la doon jar te waa ji dëkk na ci lu yàgg door a perte lañ ca doon séentu ci moom sooy boo ne ëpp na téeméeri millions ëpp na 100 millions waaye tey boo ko jaayoon doo ci am 15 millions te loolu lépp kan moo ko garanté banque yi ak société yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu alal biñ demee ba loolu am nag bi moo du perte ab du perte foofu la opération ba taxawe ñëpp daal di wëlbatiku yëg ne musiba am na mooy bong yi ñoroon yëpp soppiku na ay këyiti kese yoo xam ne amul benn benn njariñ a ah, ñi banque bi joxoon ay bon yoo xam ne action lañ dañuy delsi ci banque bi ñoom jël seenub xaalis ngir man caa fay ña ca des ñu jël seen xaalis fay kii kii jël kii fi kii fay kii fay kële banque bi ci boppam dem ba mu yàgg mu yëg ne moom am na kër goo xam ne lam ca doon séentu léegi lim ci ñàkk mënoon naa jënd téeméeri kër sax kon banque bi daal nay sonn jàq na lu ciy pexe banque yi ak société yi ñu ne kon léegi leble ci boppam moom lañ duutul def wala dañ koy néewal lool bi nga xamee ne nag leble gi daal nay néew société yu mag yi nga xam ne ñooy liggéey yi nuy gis yépp nga xam ne moo yor daanaka développement àdduna tey yooyu seen liggéey lépp ci leb ci banque bi la daan taxaw buñ dikkatee ci banque bi di leb banque bi ne attanun loolu parce que nun lan leble woon lanu ca dal musiba la kon mënatuñoo leble société ba xëy taxaw société yi gën a mag ci àdduna tey muy Nissan muy yeneen muy boo leen tuddee ci Japon wala nga tudd Amérique wala feneen ñi ngi yebal ña fa doon liggéeyee bés bu nekk nga dégg ñu ne nangami junni nit yoo xam ne xëy nañ ne leen bàyyi leen seen liggéey parce que mënatuñ leen a fay lu ko waral mooy société bi moom pour mu mën a liggéey weer wu dee da daan jël si ci banque bi bor liggéey bu weer wi dee mu ñëw fayaat continuer banque bi nee na ko que perte naa ca liggéey bi ma doon def ci wàllu wàllu kër yi ginnaaw perte boobu ñëw na nag jafe-jafe am na ñépp yëg ne gouvernement yi ñu yëg ne su fekkee ne yëf yi continuer na banque yi dañuy daanu société yi yoroon développement bi dañuy daanu kon lan moo fa sës mooy kon nañ jël xaalis jox banque yi loolu mooy saafara si saafara si réewi Europe yi daje tey defe ne mooy saafara si ñu di ko waxtaane mooy mool xaalis bu baree baree baree bari jox ñooñu li ak góor doon wax naan lu tax nit ñi mënuñoo ginnaaw xaalis rekk li ñuy wut te xaalis ay kayit la lu tax mënuñu cee defar lu doy rek jox ñëpp benn yoon kenn ku nekk am xaalis bu doy loola ñooña daanaka moom la ñuy def fii mu nekk dañuy mool di jox di jox banque yi ngir ñi am luñ mën a taxawe ba seen pertement boobu ñu doon séentu du am te loolu moom ñi xam dara ci économie xam nañ ne loola du saafara sax kon mbokki jullit yi loolu genn wet la genn wet la gu tuuti ci musiba bi nga xam ne moo dal tey ci kaw doomu aadama yi ci kaw suuf ndax xam nga ne réew yu mag yooyu kat lu dal ci seen kaw ci alal dafay laal ñépp ndax ñoom la àdduna wóolu ba seeni banque sax foofa lañ doon denc ñoom seen boroomi alal yu mag foofa lañ doon denc kon su musiba dikkee dal ca kaw ñooña ñépp lay laal tey ci kaw suuf mbir mi nag doon béréb boo xam ne béréb bu mag la ndax béréb civilisation la lislaam ci boppam dafa doonoon diine joo xam ne dafa ñëw nim indee julli indi koor indi pas-pasu doomu aadama indi luy defari jikkoom noonu la indaale woon ci wàllu alal nuñ koy tëre ak nuñ koy doxale ay doomi aadama jóge fële yor seen civilisation ak seen xalaati doomu aadama ñëw ne yéen seen xalaati lislaam yi ngeen yor teg leen ko fële coloniser réew yi jullit yi soppi la fa nekkoon teg alxuraan jaag sunna sa fële indi yeneen i tëriin yoo xam ne dañ ne doomu aadama yu xarañee ñoo ko tër ci doxalinu alal muy wàllu capitalisme kon nag suñ demee ba tey tiitaange ju noonu song leen ñu yëg ne liñ tëroon lépp dara baaxu ci tey dem ba àgg ci lu bari ci boroom xam-xam yi koom-koom tey ci réewi tubaab yi ñu ngi naan dee sa war a xoolaat lislaam walla ñu xoolaat alxuraan ni mu tëre eh, wàllu économie ñu jéem a dellu ca anam googa ndax kon danañ mën a mucc ci yii kon ma ne su demee ba àgg foofu kon laaj na nu xam yan mooy musiba yi nga xam ne moom la ñuy def tam juuyoog li lislaam tëroon lan mooy njuumte yiñ def mu doon lu juuyoo ak li lislaam tëroon ak lan mooy tëraliinu lislaam ci koom-koom woo xam ne wu garanté la wu mën a dox loolu aaji woon a kon nu xam ko la aaji na julli di fàttaliwaate ko sunu ko borom bi tabaraka wa taala maye insha allahu xutba bii ñëw ci loolu lay jëm borom bi tabaraka wa taala nee na wala nudiqannahum min aladabi al adna duna aladabi al akbari laallahum yarjiun nee na danaa leen mosal mbugal moo xam ne mu jiitu la maanaam jiit laayul mbugal mbugal moo xam ne rek introduction la dañ leen koy mosal ngir ñu mën a dellu tuub dil si jaaraat siraatul mustaqim balaa mbugal mu mag maa ñëw balaa mbugal mu mag maa ñëw ndax kat noonu yi ñu demee ba nangoo reconnaître ni mbirum tëralinu alal wi moom baaxut ba ñoom ñëpp ñu di ko waxal seen bopp wu jullit bi amut lu muy nattable ne ci tëralin yi ci des yëpp it noonu la bone benn baaxu ci bu ci nekk day dem ba àgg foo xam ne danañ xam xel ne lii niñ ko tëre woon baaxul bu keroogee nag ci li ñuy door a xam ne lislaam mooy diine yi sunu borom tabaraka wa taala alquran mooy téere bi nga xam ne lépp luy doxal doomu aadama ak di ko jubal di baaxal doxalinam ci téere boobu la nekk su boobaa danañ siwaat jàngaat ko su boobaa borom bi tabaraka wa taala dana defal nit ñi xéewal ci kaw suuf yal na ko yàlla def yal na borom bi tabaraka wa taala dolli xéewal ci jullit yi ba ñu mën a dégg seen diine ba ñu mën cee siwaat mën koo téye ndax mu mën a sotti xéewalug àdduna ak goog alaxira ci seen kaw wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala